di seede ne moom moo yónni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu di jaamam waral si ñun ñu topp ko di ko ñaanal yal na jàmmi yàlla ak i xéewalam ak i barkeem yàgg wàcc ci kawam ñu fas am ay jotaay ci leeral buntu bi di buntu koor nga xam ne si lañu toll di ñaan yàlla subhanahu wa mu nangul ñu sunu koor waaye mu wërsëgal ñu li nga xam ne mooy al ixlaas fil qawli wal amal ñu amoon ay jotaay yoo xam ne yéene woon nañ ko ci fan yi njàngat ci lu aju sunu diine rawatina ci masala yi ñu toll di koor nga xam ne jullit bi la ko war mooy bépp jaamu yàlla mu xam naka la koy taxawee ci matal ko ci ni ko yàlla subhanahu wa taala santaane ak ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngalee gannaaw loole mu defee ko euh, na mu gën a sellee defal ko boroomam loole moo doon jubluwaay bi ñu tànnoon ci buntu koor ci téere bu màgg bi di manhaju saalikiin manhaju saalikiin ka ko bind di euh, al allaama abdurrahman ibni nasir as-saadi rahimahullahu taala di boroom xam-xam bu mag boo xamee ne eh, génn na àdduna atum junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn doon dund fële si alqasim eh, si arabi saudite foofee si al unayza foofee la nekkoon ci gox yi ñuy tuddee alqasim nekkoon boroom xam-xam bu mag a maga a mag bind ay téere yu bare bare bari ci tafsir ak xadiis ak uh, usulul ak fiqh ak yu bare bari yuy wane uh, xam-xamam bu yaatu rahimahullahu ta'ala mu bindoon téere bu tënku nag ci li nga xam ne mooy fiqh ay masala yoo xam ne jullit bi war koo réere ci wàllu diin diineem dégg gi jullit bi war a dégg diineem mu tuddee ko manhaj as-salikin manhaj mu di ab téere boo xam ne comme niñ ko waxee léegi dafa tënku waaye borom téere bi rahimahullahu taala tënk na si ay masala yu ama ama ama am solo yoo xam ne jullit bi waru ko réere eh, kii ñu naan Cheikh Khalid eh, al-Dhafiri xafidahu llahu taala moom it amoon na si ay jotaay ci leeral bunt bi nga xam ne mooy buntu koor nga xam ne cheikh bi eh, tënk na ko ci téere bi mu di kadaalika ay leeral yu ama am solo si la ñuy sukkandiku ngir eh, jottali ko eh, firi ko si li nga xam ne mooy wolof bu neexee yàlla subhanahu wa ñu jàpp ne rek dafay nekk ay jotaay yu tënku yoo xam ne bis bu nekk bëgguñu mu weesu fukki minute ak juróom xamne nit ki dina ci jëriñu bu nexe yàlla subhanahu wa taala diko ñaan mom borom bi subhanahu wa taala al ikhlas fi al qawli wal amal bu ko defé duñu def lu dul dugg ci téré bi bu nexe yàlla subhanahu wa taala borom téré bi da fay wax ni kitaabu siyaam al aslu fihi qawluhu taala ya ayuha alladina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما كن لولي موي bindu tey نجابني thème bi nga xam ne si lay wax bindu tay bi mooy lii di koor farataal di ko yàlla subhanahu wa taala farataal ci xeet wi maanaam lan mooy attey koor farata gi mu nekk farata ak si kan la nekk farata kon loolu moom mooy bi lan mooy lan mooy attey ak si kan la war bu fekkee dañ ne farata la wareef la ana kan la war borom téere bi daldi dugg leeral ne liy cosaan ci koor li ciy cosaan mooy la borom bi subhanahu wa taala wax ni yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum as yàlla ba mu waxee ci alquran ne eey ñi gëm yàlla farataal nañ ci yéen lii di koor comme niñ ko farataale woon ci ñi leen fi jiitu woon loolee daf ci leeral ne kon koor ponk la si ponki lislaam yi loola tax mu wutal ko buntu spécial comme ni ko borom téere fiq yi di defee eh, boo demee si téere fiq yi eh, arkaan eh, ponki lislaam yi dañ koy buntal buñ ko buntalee si biir bunt boobee bépp masala bu aju ci loolee ñu indi ko indi si ay tegtalam ak ay leeral yu aju si lool loola tax dangay fekk kitaabu siyaam si téere fiq yi e, téere boo dem dinga fa fekk bunt bi wax ci koor ak masala yi nga xam ne moo sa aju borom subhanahu wa taala bam ne kutiba alaykum siyaam kutiba liñ ci jublu mooy hurida hurida farata la loolu dafay leeral ne kon attey koor ci lislaam farata la si faratay lislaam yi bal ponk la ci ponki l'islami comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee buniya lislaamu ala xams si xadis ibnu umar xadis al muttafaq alayh ne lislaam ñu ko tabax si juróomi ponk gannaaw baati seede yi bi jullit bi di seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala seede ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla ko yónni taxawal julli mooy ñaareelu ponk bi woor weeru koor ponk la ci lislaam aji màkka ponk la ci lislaam hmm, joxe azaka ponk la ci ci lislaam kon loole mooy ponki lislaam yi kon attey koor ci lislaam mooy ponk la ci ponki lislaam yi farata la ci eh, kenn eh, ku nekk ci ñi nga xam ne dina ñëw eh, charte yi nga xam ne moo war a daje ci nit ki koor nekk farata si moom dina ñëw insha allahu taala kañ lañ ko farataal ñu ngi ko farataal si ñaareelu at si gàddaay gi ñaareelu at bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay jóge mag ñëw madina si ñaareelu at ba si lañ ko farataal lu jiitu loolu nag tànneef la woon maanaam ku mu neex woor ku mu neex leel ku mu neex woor ku mu neex leyal gannaaw gi lañu nasaxal atte bobé mu daldi nek farata ci comme niñ ko waxé légui tanef gogé la koy woné moy fa yàlla subhanahu wa taala di wax ci suratul baqara wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun taamu miskin faman tatawaa khayran fa huwa xayrun lah wa an tasumu xayrun lakum yàlla subhanahu wa taala ne kep ku ko man ci yéen na leyal miskin képp kuy def lu baax nag di volonté wu di def lu baax xam ne loolee lu gën la lu baax la ci moom donte na ngeen woor nag moom moo gën yàlla subhanahu wa taala daal di def fii koor maanaam tànneef diggante nga woor ak nga leel diggante nga nga nga woor ak nga leel kon ci commencement l'islam tànneef la woon ku mu neexoon da ngay woor waaye ku neex nga leel bis bi nga war a woor nga leel ci miskin لو تنولولي لنكونا سخال بنكونا سخالي يا الله سبحانه وتعالى دال دي وخني فمن شهد منكم الشهر فليصوم لكن كيبكو ويري فيك في ويرو كور كوم في فكاتي نوار امتو لنين ورك مو في ام فليصوم هو نكو وور مانا ويروا نادي ويرو كور لولي ابن عمر نيتلي نكو اك ابن الاكوع comme ni mu ñëwé ci sahih al bukhari ak sahih al muslim sahih muslim di euh athar bu wér ibnu abbas nak daan na gis ne ay bi kenn nasa kenn nasaxalu ko totalement maanaam ñu ay bi wa ay bi da fay dess ba légui muy fi yàlla subhanahu wa taala li wax ne wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin fidyatun ta'am miskin nee nasaxaluñ ko waaye dafay des ci ki nga xam ne mooy mag mi dem ba mënatu la woor xubidaas mënatu la woor ak jigéen ji nga xam ne dafa ëmb wala kuy nàmpal kookee du woor day leel du woor day leel moo tax ibnu abbas daan na wax ni وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان wal والمرضع إذا خافتا أفطرتا wa at'amata an kulli yawmin miskina mu ne dafay sax si ki nga xam ne mag la magal dem ba mënatula woor moo xam góor la wala jigéen buñ demee ba àttanuñu li nga xam ne mooy koor gi kadalika euh, jigéen ji ëmb ak kii nàmpal bu ñu ragalee ne mënuñoo woor ñooñee dañuy dog duñu woor bu ko defee dañuy leel benn bis bu nekk ñu leel si miskiin bis bu nekk ñu leel ci miskin loolee lu saxla lu jóge ci ibn abbas comme ni ko al imam abu dawud solo ak al bayhaqi ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar ñu solo loolu jëlee ko ci ibn abbas kon moom da doon gis ne aaya bi kenn na saxalu ko din manière générale mais ba léegi dafay des ñu koy jëfee ci wàllu ñi mu concerné mooy leel gi leel gi ñi mu concerné te mooy mag mi dem ba mënatu la woor kookee day leel waaye jigéen ji nga xam ne euh, dafa ëmb euh, mbaa muy nàmpal dina ñëw si kanam incha allah loolee ak leeral kañ lay fay ak kañ lay leer waaye mag moom mi dem ba mënatula la euh, woor moom dafay dafay leer lool moom leer na ak ki feebar feebar boo xam ne docteur yi dañ ne kii mënatula la woor ci dundam ay docteur yu maandu bu fekkee dañoo wax ne kii mënatu la woor ci dundam moom ak mag mi nga xam ne dem na ba mënatu la woor ñooyam ñooñee dañuy leel bis bu nekk miskiin kon lii di eh, koor bu fekkee dañoo jublu si wàllu ngëneelam amul werante ne dafa bokk si jëf yi gën si jëf yi yi bari ngëneel yoo xam ne yàlla subhanahu wa na ngëneelam si bam si defee fay goo xam ne amul ab maanaam moom rek moo xam lam say fay boroom kadalika yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ci woor gimiñam forox googu muy forox moo gën a neex fa yàlla subhanahu wa taala lii di almisk kadalika wutal gim leen wutal bunt sa aljana tuddee ko ar rayyaan mu di woorkat yi loolee lépp dafay wane li nga xam ne moom mooy ngëneelu koor jaam bi war see góorgóorlu kon si ak tënk buñ jubloo si ki nga xam ne moom la koor war borom téere bi dafa continuer wax si ne wa yajibu siyaamu ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala sawm bi ru'yati hilaali aw ikmaali shaaban thalathin koor mën nañ jàpp ne ki mu war faw yi daje si moom mu nekk jullit majeur warul xale bu ndaw tonti ne bu wooree ñu nangul ko ko ku ànd ak xelam képp ki nga xam ne tàggoon ak xelam koor teggeeku na ci kawam waaye mu nekk koo xam ne ku mën a woor la kàttan gi comme niñ ko junjee sànq waaye it mu nekk koo xam ne tukkiwul feebarul ñàkk feebar bi dafay dugg ci ànd ak kàttan ci koor waaye tukkiwul ku nekk ci xadar ndax yàlla subhanahu wa taala teggil na koor ki nga xam ne dafay tukki comme nam ko waxee Eh, faman kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin képp nga xam ne dafa tawat mbaa mu nekk ci ab tukki kookee yàlla subhanahu wa taala nee na fay beneen bis bàyyi ba beneen bis mu woor ko eh, lii kon moom mooy bindu tay bi ci ak tënk ci farataalu koor ak kañ ak yenn ngëneel yi nekk ci koor eh, bu neexee yàlla subhanahu wa taala ci jotaay yi di ñëw ñu daal di euh, wëy ci li nga xam ne moo aju si téere bi di manhaju as-saalikiin ndax bëgguñu jotaay yi di gudd lool wallahu taala aalam sala allahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain